tere nañ ci taxaw. li yàlla tere nañ ci taxaw. li mu digle nañ ci taxaw. li yàlla digle nañ nañ ci taxaw ci def ko. alquran juróomi yëpp rekk ci nekk. alquran yëpp boo ko jàngee juróomi affaire ci nekk. alqasasu. nee na nettali histoire bu fi jaaroon. wal amru. nee na ak ndigal yàlla. wal nahyu. ak li yàlla tere. wal waadu. ak nag li yàlla dële wal waidu ak tëkku gi mu tëkku doomu aadama yal nañ yàlla musal ca tëkku ya yal nañ yàlla musal ca tëkku ya yamu dële yal nañ sa yàlla yamu dële yàlla nañu ca joxal nag la mu digle yàlla nañ ko def la mu digle yàlla nañ ko def la mu tere yàlla nañ ko bay la mu tere yàlla nañ ko bay bàyyi ñu amul xam-xamu jàng ko it fu ñu koy jàng yal nañ toog yal nañ toog déglu ko ñu amul xam-xamu jàng ko it fu ko borom xam-xam yi nettalee yàlla nañu mën a toog déglu ko ci alquran ci alquran yonent bi wax na ci lëf yonent bi wax na ci lëf de kitaabullahi fihi naba'u ma qablakum nee na téere bi yàlla ne sama téere bii mburum gaañu jëkk ñee leen jiitu woon yéen ñi may waxal wax naa ci seen mbir wa xukmu ma baynakum nee na yéen ñi itam seen atti bi ma leen di atti ëllëg alquran nettali na ko léegi wa xabaru ma ba'dakum ne ñii ñëwit yàlla nettali na ci seen affaire yàlla nee na yàlla waxaat na ni in tanazatum fi cheyin farudduhu ila allahi wa yàlla bu ngeen wuutee ci ci mbir bu ngeen desee d'accord ci benn mbir mu mënti doon delloo leen ko ci téere yàlla bi mu àtte leen à condition que in kuntum tuminuuna billahi wala yàlla ne ba ma leen koy waxi nag bu fekkee gëm ngeen nag gëm ngeen ku gëmul moom yàlla waxul ak yow dara lu muy duma rek réew mi daal war nañu seetaat seen bopp kon nee na réew mi nañ seetaat seen bopp gouvernement bi war nañu seetaat seen bopp nguur gi nañ seetaat seen bopp ministère yi nañu juboo nee na ministère yi juboo ne benn ku bëgg a mi réew nee am réew ku ko bëgg a amee kenn ku nekk la teg ca loxom da nga ko cay dimbale moom ñu dimbale ci la nga nekk lañ la dénk dénk ko sa morom da nga koy dimbale ci lañ ko dénk la nga ca man moom it mu dimbale la la dénk ñoom tamit président bi mën a liggéey su ko defee nag borom réew mi mën cee dëgg nag liggéey gouverneur yi mën a liggéey su ko defee seen surga yooyu yeneen yëpp féete suuf liggéey préfet yi mën a a liggéey liggéey. su préfet liggéey. fonctionnaire yi mën a liggéey. fonctionnaire yi liggéey. dara mën a génn réew mi jëriñoo. dara mën a génn réew mi jëriñoo ko. baay doom am doom am baay. doom am baay. doom topp baay. doom topp baay. jabar topp jëkkër. jabar topp jëkkër bi. rakk topp magam. rakk topp magam. taalibe topp sëriñam. taalibe topp sëriñ. sëriñ bi jóg. sëriñ bi jub di wax li yàlla wax di wax li yàlla wax te jiitu ca def ga te na jëkk koo def di tere li yàlla tere di tere li yàlla tere te jiitu ca bàyyi ga te jëkk koo bàyyi nag lu mu gis te du dëgg lu mu gis te du dëgg te yàlla bëgg ko nga xam ne yàlla bëgg ko mu bàyyi ko na ko teel a bàyyi am fitu digle ko am fitu digle bàyyi ko ca toppee mu ànd ak ñoom buñ ko ca toppee mu ànd ak ñoom ñu bañee mu bàyyi leen bu ñu bañee ànd ak mu bàyyi leen te féetale boppam ak ki nga xam ne ku mu amee kenn ban moo amee keneen du mën ci yow dara. waaye nañu wóor ne réew yi benn doxatu ci. waaye nañu wóor ne àdduna jëpp réew yi benn doxatu ci. ndax juboo amul. ndax juboo amul. xol yi ànduñu. xol yanduñu defatuñu li yàlla bëgg defatuñu li yàlla bëgg bàyyeetuñu li mu tere bàyyeetuñu li yàlla tere ak bokk rafetatul ak bokk rafetatul kóola rafetatul kóola rafetatul kenn wóolatul sa morom kenn wóolatul sa morom jabar ji sax wóolatul jëkkër jabar ji sax wóolatul jëkkër jëkkër wóolatul jabar jëkkër wóolatul jabar doom doylootul baay doom doylootul baay baay soppatul doom baay soppatul doom xam ngeen ne loolu mooy dox. nee na loolu ku nee ci àdduna xam nga ne moo fi dox. ni ma ko xamee ngeen ko xamee. nee ni mu ko xamee rek lañ ko xamee. waaye boo xamee ne suñu gisee Abdou Diouf. waaye boo xamee buñu gisee Abdou Diouf. ne ko réew maa ngi dox. naan ko réew maa ngi dox. te dara ci. te dara ci. mu am ci mbetteel. mu am ci mbetteel. kilifa diine gi defe ne lépp a ngi dox. kilifa diine gi defe ne lépp a ngi dox. ngay seen xale kilifa yi. nga boole ci nag ñenn ñu eh, yi def ko ay yëpp. ñu allahu akbar ca jàkka ja booleetuñu allahu akbar ci jàkka ja taxu waaru tamu ba nekk benn Seydi Aboubacar si nee na ndax Seydi Aboubacar si daana wax ni laa ilaha illa allah mu yéen laa ilaha illa allah ku ñee deq laa ilaha illa allah ku ñee deq rendi laa ilaha illa allah ñu daje ca kanamu laa ilaha bu ñu demee ba daje ca kanamu laa ilaha lay laa ilaha illa allah mënu ñuy lay laa ilaha illa allah xanaa bu kenn wax ne bu kenn def lay ne tiwaawoon jubóowuñu wala tuba jubóowuñu suñ ko def wala dañu bon rek sëñ bi nee na waay waay tiwaawoon jubóowuñu wala tuba jubóowuñu bu mu tee kenn jubóo ku mu tee jubóo da ngaa nar a bon rek kon Tiwaawan jubuñu Touba jubuñu. nee na kon Tiwaawan ak Touba kenn jubu ci. yàlla dafa ne waatasimu bi hablillahi jamian wala. yàlla wax ak ñun ne mooy leen ci buubu yàlla gi ñu ne mooy lislaam ñu ne mooy alquran ñu ne mooy sunna mu ne mooy bañ a nax sa bopp wala tafarraqati bu leen teqalikoo. yàlla ne fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum. yàlla waxaat nag ñun te ne ni ragal leen ma man buur bi te yéenal seen i diggante ba mu leen. door ca teg wa atiu allaha wa rasul rasulahu door ca teg nag te ngeen topp yàlla ca la mu leen digal topp rasulullahi ca lam leen indil jële ko ci yàlla andi condition nag teg ca waaw ah, waaye yàlla indi na sart teg ca nag in kuntum muminina ndegam ay croyant ngeen nee na loolu lépp nag yàlla nag nee na ah, lii may wax lépp kat ndeg ndeg gëm ngeen moo tax ku gëmul yàlla wax la yow dara mu ne wala tanazaau fa tafchalu wa ko yàlla waxaat na feneen ne bu leen xëccoo ko ŋaayoo ko werante su ko defee ngeen ñàkk seen kattan perte lii su ci Tiwaawan nekkul nekkuñu ci njub. sëñ bi ne lii mu fi wax daal bu ci Tiwaawan newul newuñ ci njub. su ca Tuuba nekkul nekkuñu ci njub. bu ci Tuuba nekkul nekkuñ ci njub. su ca Quraysh nekkul nekkul ñu ci njub. Quraysh ga Muhammad juddoo sax sallallahu alayhi wa sallam buñ ci newul newuñ ci njub. su ci rasulullahi nekkul nekkul ci ko li ko yàlla digal. nee na bu ci rasulullahi nekkul nekkul ci yàlla ko yàlla digal. loo xam ne leen neexul yàlla jarul roy ci sëriñ jarul ya roy ci kenn. nee na lu neexul yàlla jarul roy sëriñ jarul royee kenn sa sëriñ gëm ko topp ko sa sëriñ gëmal toppal loo man defal loo man defal ko waaye nag loolu yàlla waaye loolu yàlla bi moomu ko sëriñ ko yàlla ko moom yàlla ko moom te ëllëg te ëllëg sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa borom bi nag yoonu sëriñ bi tamit yaag yàlla rek am affaire wa xussisa bi taqdimi li annahu axasu min na ni door ne rahimi te bu newul rahimi door ne rahman te ñëpp di ñaari turi yàlla bii li mu lamb bee da koo lambul rahmaan yi day wërsëgal ku baax ku bon kaccoor ku yiw ku ñàkk ku am ñëpp la rahmaan yi xëy rawitaay waaye rahimi nag moom bu boobaa ka soob yàlla dong dong dong dong yaa koy jagoo matalul ñëpp moo tax ñu mujjal ko yàlla ne ko li tax ma fayee yàlla ne ko li tax ma la ko def baax def baa bii kaana ma kaana wa bii yakunu ma yakun yàlla ne baakar wàccam googu tax ma digle ñuy ko bindee noonu pour yëkkati ko màggal ko ndax lim nangoo wàcc moo ne boole naa ci beneen secret de bii bii ci baa boobu li am ci la amee liy nekk ci lay nekk ëllëg loolu ku ko yàlla jagleel waay waaye jooju daraja ku ko yàlla jagleel jooju alquran tànnal la sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nga bokk ci xeetam muy sa yonent tànnal la alquran tànnal la alquran muy sa téere tànnal la diine l'islam tànnal la diine l'islam muy sa diine defal la qiblaam bi muy qibla mu defal la qibla sallallahu alayhi wa sallam yi muy sa penk keneen foo jublu te du fii du yàlla du na te qibla kat kaay ma wax la foo julli jëm fu dul qibla bi yàlla ne nañ fa jublu julli ga amul njëriñ te yàlla mënoon na ko def sax ba noppi nëbb ko te yàlla kat mënoon na ko def sax bañ ma ko xamal waaye feeñal la lépp xam nga yàlla mënoon na ko julli foo fu la neex ci jublu ku ci tombewul ci ma bëgg rek doo jëriñ waaye xamal nañu ko nga ne yàcc rek yow nag yooyu yëpp yooyu moyen nga ne yàcc rek kër goo ne laara bi laanaam kër goo taxaw ne laaro bi laa daw ñuy waaj a yàq rek ñuy a yàq rek nga ne daa dem feneen sëñ baa ngi léegu rek ni nu perte nga bu ñuy waaj a yàq rek nga yàkkamti dem feneen ni laaro laa daw ñuy waaj a yàq ñooña di a nga jàll daa dem ba doo lekk da ngay dem a dem a dem ba kër gee nga dem fekk ñaañ ba noppi boo wënnee ko ca ñee yàq nañ ba pare defe nañ ne ñu nekkuñu ci dara dara. mais xam nga ñun ñii ñëpp dañoo ñàkk a ñàkk fulla ba defe nañ ñu newuñ ci dara dara dara dara. dem nañu ba li fi mag ñi bàyyi woon sax ñu ne. du dara ñu dem a dem dem ba wëlër bi nu amoon kee gi. mag ñi bàyyi woon ko fi ci jikko ñu sell ci xam-xam ak jaamee inu yàlla sax mun nu mënoon cee profité ñu ne yàcc ne loola du dara indi l'islam bi fi mu toll nee na te mag ñooñu kat seen kër kër loolu indi l'islam mu toll ñu ne ñu ne duñ dara nun nag loolu lépp naan danoon ne duñ dara la mag ñi doon jëfee su dul dara ci yàlla kenn du yóbbu dara lu mën a jëriñ nee na mag ña lañ doon jëfee bu ñu yóbbuwul dara fa yàlla keneen ku jëfee leneen doo yóbbu dara fa yàlla seetal leen seet leen Baye Serigne Touba li mu daj seet leen maam borom Touba li mu daj Cheikh Sadibou li mu daj Cheikh Sadou Abiy li mu daj Cheikh Sidiye li mu daj Cheikh Sidiye radiyallahu anhu li mu daj Baye Cheikh Boukounta li mu daj Baye Cheikh Boukounta fii rek li mu daj barki démb Serigne Ndiassane li mu daj Serigne Ndiassane mii fi ne li mu daj Serigne Layeen li mu daj Serigne Layeen noonu ñaseen li ñu daj ñaseen li ñu daj waxuma ñaseenu léegi de waxu ñaseenu léegi de waxuma tiwaawunu léegi waxuma tiwaawunu léegi de waxuma laayeenu léegi waxu laayeenu léegi de laayeenu démb la laayeenu démb la wax lu mu wax rek cosaan laa tax mu wax. ñun ndëd laa ngi sukk leen rek. ñun nag ñu ne rek ndëd laa ngi aset baa ngi nii sukk leen rek. lu ci yet ak paaka wuti. ñun lu ñuy defee yet ak paaka te noonu danga ko bu baax rek. yow yow ruujuloo tool bi. yow boo xamee ne ruujoo tool. faraasu woo ko. faru woo mooy ji dugub ca ba mu tawagul. séddiwul ci sa kanam. nee na taw séddu bi sax fekku la. jiwuloo. jiw jiwuloo jiwu raado woo raado wuloo gerte gi ballar ñu woo ballar ñu woo mbay bayaatoo bayaatoo buddatoo buddatoo nabatoo